jere ngeen jëf mbokk yi nga xamee ne yéenay bàyyi xel seen seen bu mag bii di bus 89 ñu fas yéene leen a dikkal ci xibaar bile kaawteef mbirum xale bi ñàkkoon bakkanam ci dëkk bu sel bii di Touba ci ab bassin te toll ci juróom-ñetti weer jàpp fukk mbir ma mu mel ni ki ma ngay commencé leer ci enquête yu njëkk ya ka ñu ca njëkk a teg loxo nag mooy yaayam ji ko jur ci li enquête yi wane moom àlloo te atam toll ci 18 ans jàkkaarloom ak enquête kat yi la mu xamle mooy mujj gisug doomam laataa ñuy añ la ci néeg maamam bi ñu añee ba nopi fekk boba ma ngay dallu ci la ben xalé ñew ay atam wala tollu ci ñent at xamal ko ne ko sa dom ji kat ñong koy wër ta booba ba léegi gisunu ko biñu ñu wër gi ci lañu ko gis ci bassin nekk ci biir kër gi mu bakkanam mbir momu nak ci fatali mu ngi amoon niki aljuma ji wess mom alu nekk yaayu xalé bi ñaarelu jakarlom ak gaayu commissaire mam Arona Ba bu commissariat bu ndamatu ñom enquêteur yi xam leene bassin bi guddayam war na toll ci 1m50 ba pare dafa tejeewon nan la ci xalé bi wara tollu ci juroom ñetti ja japp fuk mana duggé lolu dal xel téyi na ci Nyu ñu daal di wëyal enquête bi ci ñaarel jakarlo ak alo mi bi tani, gëné yaatal waxtaan wi mom alo daal di nongu né mo sagane doomum ji ndax moko tégon ci kaw bassin bi waye lolu yépp lamu ci jublu won ngir bañ melantaan yi daal di koy matt bi mu duggé ci wañu ba ci la gis na doomum ji dugg na ci bassin bi mu amone titange wax luñu mel ba doomum ji jaaré fa ñak bakkanam jamono ji police bu ndamatu daal di nañu koy tek loxo daal di koy def liñu wax garde à diko topé fat bakkan ci ñaka tay waye ñaka taxaw ku nekk ci ay jafe-jafe dañu leen ko toppal ba xam fan la di mujjé ak i di leen ñaan ngeen wéy di abonné ci seen chaîne bi di Buzz 89 ndax lepp li ngeen soxla won ci information mo leen kay jox